bëggal ka fay kan ngi yegg si na fay say ko moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu yi ñu leen di kontaanee bu baax baax ñu ngi ñëw fi nag seeti champion bi moom kenn du ko présenté nekk fi woon nag waaye teew na fekk nañ ko si dini fekk muy liggéey dañ koy bàyyi gaay mu nuyoo ko yéen ñuy suivre rek ñu daal di yaatal champion ñu lay ñu ngi lay fay di kontaan sa teewaay di nuyu Soprim bi yëpp ah, Patte d'Oie Buldeuse beeg ñëpp di nuyu xam képp koo xamante ni yaa ngi fi yeewoo di kontaan ci yow leen gën a tàllalaat loxo di sàkku ñaan ci Sénégal monde entier ah, di wax eh, gars yi nañu waajal de yëf yi jeex na de dañuy màggali de ñun ñu ngi ci yoon wi. da nga wuti woon loolu fi lañu tal moom lu waay yore téel. ay milliards ak lu ne téyel ba ñu màggali ba ñëw dafa leer. <laughs> waroon laale la 4 août. mais combat bi dafa mel ne am na lu si laxas. waaw mais gis nga jaam ak pexem yàlla ak dogalam dañuy nangu ndogal rek xam liggéeyaat comme que ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci yoon wi yaa xamte wuñ ci dara di wax ne xam nga di masaw nag sama fan si sama nit ñi may bëggee ñi may ñaanal xam nga def nañ ci lu ne nag ci làmb ji Euh, li ñu yoroon yëpp def nañ ko ci donc ñu yàlla defee ko nii dañ koy nangu rek santee ko yàlla xam naa bu ñu jógee Touba moom dina kees gi dina gën a duufaat ndax suñu ñaan moom xaalis dina ci bokk <laughs> waaw. war ba toll fii ñu ne combat bi amatul lan lay def si mbër instant. waaw dafay metti metti na neexul moom wax dëgg yàlla parce que boo xoolee ni yow boo ay millions ngay jël def ko ci làmb ji comprendre nga toog di xaar nga xëy un bon jour ñu ne la amatul <laughs> xam nga ni loolu du la neex mais da koy sante yàlla ñàkk moo gën dee comprendre nga donc dañ koy sante yàlla xam ni ñun ñoo ko ñoo ci làmb ji lañ ko gañewaat làmb moo ko yóbbuwaat kon dañuy sant borom daaru rek xam ni moo ñu ko joxoon moo ko yóbbu garaawul sëñ Fallou quoi. fan nga doon préparé waaw ban daal maa ngi woon Soprim Soprim Gambie aussi dem naa fa comprendre nga def naa benn deux semaines comprendre nga xam nga amul fu ma dugal nag dem naa fépp yee. sama ne gars yi ñëpp yee. à chaque fois boo amee combat Gambie bi ngay dem pour waajal ko lan moo waral Gambie. waaw mais Gambie dañuy dem pour fatt ay tur rek entraîné wuñ fa dañuy fatt ay tur rek tur yi gars yi mën a jaar rek dañuy fatt rek comprendre nga mais demuñ fa pour entraîner des fois ñu cof nag mënul ñàkk ko mais xam nga <clears throat> fii lu ci ëpp fii la ñuy entraîné xam nga des fois aussi tamit ñoom possibilité dem. Espagne wala France bu ñu possibilité pour dem foofu dañ fay dem comprendre nga pour entraîner wu tuuti mais Gambie moom dañ fay dem xam nga pour cof tuuti rek ak course yu ñuy dox yooyu quoi. am na ñaari combat yu fi jàll bu mujj bi caatu yaraax la woon ak Doudou Sané gis nga combat bi ni mu demee lan ngeen mën a wax ci combat boobu. waaw loolu nag mënul ñàkk ci ci ci làmb parce que des fois xam nga ay <coughs> ay malentendu dina am. ba tax na xam mbër bi day bañ ñu ñu teg ko yenn daani du def lu dul accepte ñëw ñëw def li nga xamante ni mooy devoir am mais nekkul loo xamante ni lu ma rafetlu la ci làmb mbër kenn du ko forcer pour mu bëre mbër dañuy naxanteeg moom pour mu bëre parce que bëre dafa metti bëre ci développe des millions pour nga xam pour préparer benn combat kon donc mbër bi dañu war di parce que mbër bi nekkul euh, nekkul ku ñàkk fayda xam nga gars yi ñoo bugg yàpp mbër rek mais mbër bu njëkk ba eh, buur bu ci nekk da amoon sa mbëru bopp comprendre nga di indi seen mbër ku ci nekk eh, mbër bu ci nekk di représenté dëkkam waalo kajoor eh, Wuro Sogi Matam Siin Saalum ku ci nekk daraan indi sa mbër kon donc mbër nekkul loo xamante ni lu ñuy sorxo sorxo la wala mbër nekkul ku ñaax fayda ba ñu ba képp ko ku jóg rek war a nekk mbër du golo bu nekk war a nekk mbër déedéet mbër dafa dafa nekk loo xamante ni dafa sacré ci Sénégal du n'importe kii moo ko war a def am na ñoo xamante ni nag ay comédien lañu quoi classe ñoom buuse yeeg ñoom liiru jaan yi ñooñu waruñ sax di bëre ñooñu leen war a génnee nangu seen licence parce que duñu ay mbër ay comédien lañ dañuy yàq deru làmb dañuy yàq deru làmb ñoo ñu waruñu dugg sax ci làmb. tax nga wax loolu. ah xool rek. ñoom seen classe googu li ñuy def ci ay làmb benn mbër sañu ko def ñu eh, waru leen dugal sax si làmb. Hmm. ñu ñëw directement si combat Balla ak Tapha Tine gis nga combat bi ni mu demee. la voilà laal na kooku lañ ma war a jox man. kooku kan tapet bu mag la moom lañ ma war a jox. boo teg ne Balla tapet. waaye yow ma jox man du ma tànc ay ngaax de man ay nant laay ta laay de. couronne la soxla de. instant bii mi ngi empreinte roi bi la soxla. yow ban couronne yow mun nga jóge ci ba ngay bëgg a dee nga ñëw naan da ngay laaj Modou Lo loolu xel da koo nangu xanaa seetaanoo Lo ak booy ñaa yow. bala daa wér bay dajag bay laal Modou na ñëw ci ñun kaay jël dof bi Modou Lo at jot du pour du yow moom Modou Lo mu ngi préparé combat moog yàlla mbin bi moog sita yow ñëwal man ak yow bu dee dëgg la grand ñi ngi jël booy kaay nga jël ma moo gën ngay tourner autour du pot di leew leewal. ragal la daal loolu nga wax. tapet la ñemewul Zarko bu mag a mag muy moom muy Ama Baldé muy Gris Bordeaux ñemewuñu ma njëkk ay avance nañ ñëw jël ma wa jar ñuy nekk fii di xaar ay adversaire pour lan parce que xam nañ ni waa ji bu nekkee à 100 pour cent ñoom ñëpp da di caw yee ñoom xam nañ loolu xam nañ bu ñu Zarko bu nekk ci waxuma la 100 pour cent sax waaye quinze wala 60 pour cent rek ñoom ñëpp ku ko ci jël dalay lay caw moo tax duñ ko def xalaatuñu ko sax. instant bi sax am na ñoo xam ne ñi wax naan Zarko euh, bokk na si gars yi gars yi dañ ko war a jël mais Zarko lan moo tax moom moom si boppam du jël avance su gars yi di ñëw si booy yi. yéen booy instant bi moom aw benn avance moom ku ma jëlul damaa ragal. man booy yi ma jël yëpp. chapeau à Zarko ndax booy yi ma jël yëpp dama leen caw kon ils n'ont rien à dire amuñ dara lu ñuy wax buñ ma jëlul rek dañoo tàppet loolu kese la dañoo ñoom fi mu nekk seen fin de carrière lañ nekk di defar defar seen de carrière. ay Balla Gaye yi ay Ama Baldé seen fin de carrière lañ nekk parce que xam nañ ñoom ñëpp dama leen di génnee ci làmb ji loolu ma leen may jàmm ñoom ñëpp xam nañ loolu. ban VIP ñooñ fu ñu nekkee fii ay VIP defet la ñu xanaa moom mooy kan moo fay VIP wax ma làmb Sénégal benn VIP la am muy Modou Lo amul keneen. yee parce que moom kese moo fi génn ak roi des nam ba léegi nii déggagul mu ñël kon ñeneen ñu des ay VIP corxo corxo lañu gis nga nit da ngay gore wet gore wetu ko gore nangul doomu aadama lu ko yàlla nangul. boo ko defee doo sonn Modou Lo c'est le king the king of the king. yee du moroom ay Balla Gaye yii nii wala ay Ama yi ñu bu ko yab. am na ñoo xam ne ñeneen na balaa ngay àgg si Balla raq ji da lay placé saako yi la ne. Eh, non non kooku may nañ ko sans am seen daan ko na dem xaari leneen na dem liggéeyaat na jël na jël aada faas na jël ñoom aada faas ak ñoom jéen kayre kooku du mën ak ñoom man je suis sortant avec cinq victoires du mën ak moom enchaîne successive yee eh, moom na dem jëli ñoom aada faas ak ñooñu ñun ma daan ba pare mu soog ñëw si man man du man ak moom kooku daa nekk si saako. bu avance bu Balla ñëwoon noo koy def. jël nga ah, man nu ma koy def <laughs> mu koy jël tabaxaat sama dini aj ko ci kaw nga xam lan yow xanaa yow. mais bu génnee foofu dañoo gis ne combat MMA yi combat yi pare nga pour MMA. waaw mais loolu da nga koy da mu wax Eric Favre mu tëgal ma combat MMA moo gën muy dem di wër ay mbëru comédiens yi di leen yóbbu ñuy def ay MMA di yàq deru Sénégal da ngay ñëw ngeen jël ñu ñun ñun ñoo bëgg def MMA Zarko Eric c'est Zarko qui va qui va compétir sur MMA pas d'autres personnes yeah. si tu veux aider les jeunes les jeunes viens me prendre et je vais te montrer qui je suis sur MMA moo gën ngay jël booy amul benn njëriñ yi di leen ñu leen noq nga yàq suñu der di comédie nous ne sommes pas des comé sur ça Donc viens parler avec nous et trouve-nous un combat et on va faire la compétition et on va gagner, Inch'Allah. Yeah. C'est ça qu'on veut. Pas que tu prends des, autres personnes qui savent rien sur ça. Tu as pris Boussite, hein, Laurent euh, t'a donné aucune satisfa satisfaction. Donc qu'est-ce que tu attends de venir vers nu Si nous, nous, nous voulons on est, capable de le faire. Arrête de chercher et tu saches que tu l'as déjà trouvé. Seigne bi. fas nga ko ba mu duul ma ma rëg-rëg ma noq ko noq rëg-rëg yéen la jaaxal de MMA bokkul ak làmb de MMA bokkul ak làmb de MMA am na kuntaaba am na kuccël am na lépp danga nga am na wéq ak lépp te man sama tànk day jóg 2 mètres ci kaw rëg-rëg nga wax de rëg-rëg dafa yow dimbale ma nga may wax ay rëg-rëg bu ma wax fu loo fii rëg-rëg lu ma ko bëggul wax waaye yow nga ko MMA du arène yàlla ma jël Eh, yow eh, da ngay jóge fii de dam lay sànni si ginnaaw da nga moom ñeme ngaa tëj Reug Reug mooy kan waaye doo ma dimbali waxa mu jël ndax ñeme da dem si moom ngeen ka ndax ñeme nga Zarko MMA loolu nga koy wax ba pare yow da ngaa dof MMA nekkul làmb de voilà pour nga xam ko rek waa dama lay wax rek. daa yàgg si MMA te yow mosoo. Eh, ci dëkk man du ak moom gis nga gaa yooyu noqoon mu ba mu xë ba mu man kooku laay commencé bu ñu may jox yee yow tamit xaana nga dof yow man ma entraîné ak ñoom Ali and entraîné ak ñoom eh, comment dirais-je eh, cat catareero xam nga kan mooy catareero catareero xam nga mooy kan non tu le connais même pas benn gaayaan bu doon for ay mbalit ay mbalit Espagne am doole ñuul kuk nekk naar xam nga eh, espagnol loolu lay wax catareero mooy ñuy for ay mbalit kooku moo dàq MMA Espagne da doon day dóor ay nit benn dóor lay dóor nga këpp moo ëpp téeméer jun yoon wallaahi azim bi ñu ma boole moom dama kaa noq bu muy bëgg dee te entraîné wu ma MMA période boobu sax après si lañ ma si la ñoom si lañ ma recruté di entraîné ak man yee man dama entraîné MMA avant may ñëw Sénégal yee ndax waxuma néew ma la nii rek dama ko bëgg def nii nii nii rek pour bu ko def de parce que dama ko entraîné yee. bu ñëwaat ci làmb ji rek instant bi la moom nga gis ne yow da ngeen war a laale bu weesoo Balla kan. non man Balla rek moom bu ma joxul Balla moom mun nañ ma mun nañ jëlaat sama licence quoi. ndax man j'en ai pour prouvé dañ ma jox Balla wala ñu jox ma Ama Ama Baldé am na am na am na avance Gris Bordeaux mi ngeeg avance Ama seen mi ngeeg avance <laughs> kon donc ñoom lan la ñuy xalaat pour ne jox leen ma Zarko <laughs> wala loolaa bu nga laajal ma leen wala léegi ñu ne ma Zarko bàyyil yaa ñu mën ma bàyyi loolu tamit c'est si loolu mun na nekk nañ ma ne bàyyil yaa ñu mën ma bàyyi mais ñoom ñëpp mu ne xanaa mënuñ boole ragal ma nag. yow da gis ne la ragal. ah mais loolu buñ ma ragalul lan la leneen moom fii ragal rek moo fi nekk amul leneen ñoom ñëpp ay tàppet lañu ñemewuñ ma ah da ngay parce que ay mag lañu nag ay màggat lañu te amuñu amuñu temps pour ñun chaque jour dañuy entraîner matin midi soir dañuy entraîner guddi sax dañ koy entraîner ñoom bu fekkee ñeme nañ ñu nañ ñu jël loolu kese la mais buñ ñu ñemewul nañ Zarko ñemewuñu ko garaawul Zarko dem seet jël ta eh, jàppaat booy eh, ñoom la rek ñoom ñooy xool rek buñ ma paree pare naa buñ parewul nag. ñu bàyyi xale yi féroce yi rek. muy noonu dernier kàddu bi muy doon. dernier kàddu bi fi ñuy tëjee rek mooy di sant gars yi taxaw fi yëpp. mu la neexoon dañuy ñibbi xam mais defuñu ko ñu ngi toog xam nga di déglu di teewlu comprendre nga ñu nuyu ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn écrit Grand Yoff mbooloo dirigeant yi staff bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di wax aussi tamit sa patron Beuz boo demee neexoo Zarko nee na boo yi ngay utal combat MMA na nga ko bàyyi te nga jublu ci moom bu fekkente ni bëgg ngeen ko jàppale muy yow muy Eric da ngeen ñëw ngeen jàppale ko boobu moom fi mu bëgg a egg ci eh, ci taekwondo wala ci MMA wala ci làmb mu egg mu egg ko fa. parce que jàppale ngeen mbër bu nekk gisu leen ci dara jël ngeen fii tafaatin yóbbu ko bu Côte d'Ivoire ñëw mu ñëw fi bàlla ji rajaxe ko toj kanam bi yëpp amul njëriñ. te naka ngeen di gisee le le le successeur du roi l'empereur ngeen dem di jàppale ñeneen bës lu ko dal moog Eric du ngeen ñoo ngeen jàppale ma man ma ma téye làmb ji jël roi des arènes ngeen di dem di jàppale mbër yi nga xamante ne amuñu njariñ luy seen problème ah bës la mooy sa problème man cette cette question là que je demande yow laay attaqué direct la mooy sa problème yow ak Zarko yee ba tax na mënuloo ko link ak gars yi ki gars yi def MMA ñu jugal ko ci MMA bi c'est quoi ton problème what is your matter qu'est-ce tu problème ah ti yow kay jonante ti yow que vente aquí, estamos aquí, tío, entrenando cada día, cada rato, tío, y no quiere ayudar nosotros. ¿Para qué? ¿Eh? nga jàpp ci gars ñu dem ci kanam roi des arènes la ñu bëgg. yee mais jàppale yoo xam nga ni jàppale ñun ñoo ko gën a soxla ñun ñi nga xamante ni ñu ngi écrit grand mbooloo amuñu kenn ku ñu jàppale ñooy jàppale suñu bopp. mais yow nga yore link ma la su ma yore ku mën a ku mën a jàppale sportif nga koy yóbbu ay géej waaye Pikine Thiaroye Parcelles. doo ko indi grand F ñëw jàppale bi nga dem di jàppale ñeneen ñoo xamante ni ñoom Aziz Ndiaye ñëpp ngi seen ginnaaw waa Bawol xaw ma ñee tamit am na ñu leen jàppale sa problème waa yow xaw ma li TV la xaw ma yow bës journaliste bi laa rus rek mais am nga sens yee onoon bandiraɓe kalpulaar men mbel ci mën a feewi on jaaraama la jaaraama eh, wax bi na xam nga lépp loo xamante ni lu ci ñaaw la ñu ngi koy jégalu xam ni suñu xol moo tàng rek daf day daf fekk ñu entraîné ba pare yaram yi tàng lépp lu ci baax nag ci suñu borom la ñu ngi ñu ngi jégalu ñëpp ci kàddu yi di wax ne na xam nga Ila Touba ñoo ngi ci yoon mi de ku demul dañuy dem ku demul ñun dañuy dem jërëjëf borom daaru jaajëf Sénégal ka fay locale la ñun ñoo moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko.